ci élément bi ci leneen nga doon wax. ci yeneen nga doon wax. Ah, lu egg si élément bu baax nga waroon wax merci. teral naa la fukki junni suñu loxoy jotantewul mais nañ ko def kii wala rek kii wala ñoom Nour bu ñëwaatee dinaa wax ci élément ba ni euh. ayca <laughs> ayca Diaw comme ni nga ko waxee rek donc c'est des yoo xamante ne dañ leen war a wane sànq da nga am solo nit boo koy jàppale amaana sax léeg-léeg du xaalis waaye fësal li nga xamante ne moom moo di liggéey boobu te surtout xeetu liggéey yi nga xamante ne saa su ne nit yi dañ koy romb diñ ci bàyyi xel waaye amaana ñi ngi ciy def lu am solo waaye lii nag moom mooy devise wala li nga xamante ne moom moo di euh, slogan wu télévision Futurs Médias ndax seetu askan bi la te askan boobu leen dañu war a wanale ak yeneen askan yi ñu xam ñoom lan lañuy euh, tekki eh, ci réew mi Abba. am na solo. di wax rek rafet euh, liggéey Kole Laay. Mhm. di wax ne dafa wax li xew ci jamono. Mhm. ndax euh, tey rek ci suba maa ngi seetaan Popenguine moom la abbé bi wax. que nañu jàmmoo bàyyi gaañante bi rayante bi ak li xew ci société bi. loolu la Kole def te loolu mooy rôle seetu bi. ndax seetu Sénégal la ñu wax képp ku ko xool rek da nga ci war a gis sa bopp. Mhm. te Kole tubaarkàlla macha allah yal na la yàlla fal cat. andi solo te defe naan ñi koy def dégg nañ ko. te doole. ñun seen rakk yi ak seen mag yi. Euh, tubaarkalla eh ba loolu laa wax. di wax ne di courage di courage am na solo maa ngi gis ay clients ñu ngi lay woo ay Moutala ndigal teg ñoom ñëpp ñu ngi lay woo dafa mel ni dañoo kii moom moo fi génn léegi. moo daw tey moo bëgg ñëwaat nii. maa ngi gis mu lay woo ba nga wuyu ko bàyyi après bi noonu. waaw pour mu xam ne yaa ngi ci plateau bi en en direct. li kolle lay def li kolle lay def waaw gis naa sax keneen ku bind message. ban heure bi. boo wàccee xaw ma lan yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla ma lépp di umb. yàlla na man kii la jënd laa. mais xam nga incha allah fii nii. waaw def lan nga ci xalaat balaa may wax ci non yow kenn message bi moom yow kenn message <laughs> eh, bu la message moom. waaw moo tax ma def war nga ko wékk foo wékk kii bu ruus bi. waaw moo tax nag ñoo ko wax xale bi. c'est que nga koy wax. yi amul bàkkaar. Kole moom uh, nee naa la. Mhm. ay xeetu uh, rubrique am dafa am solo. ndax mhm. nag wax dëgg yàlla day dugg ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. Uh, lan la ñuy wax baa consommation locale. wallaay waaw mi ngi noonu moom nag yooyu la ñuy indil saa su ne ba dañ ciy gis suñu bopp bu baax a baax xeetu meuble bu mu la indi rek war nga koo mën a jënd pour sa kër. Euh, ay décoration yu nice macha allah euh, kii nag borom euh, ensemble yi moom wax dëgg yàlla nice na lool ndax yii dañ koy soxla suñu biir kër yi abaa mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. waaw man bu ajaa ombilico bi tam bëgg naa ko aca <laughs> yéen téléspectateurs yi mën ngeen a woote ci li nga xam ni moom mooy numéro yi nga xam ni mu ngi feeñ ci seen ay suufu écran waaye dama ni moom dañu koy invité ci page yëpp ci réseaux sociaux yi ñëpp koy invité maanaam ñi def influence ñi TikTok ñiy def Instagram ñi nekk Facebook ñëpp koy invité parce que euh, ci li mu nekk dafa bari ba pare dafa intéressante toog di waxtaan ak moom ma ne ko pourquoi pas ñu def ko ci seetu bi nga ñëw ñu toog àdduna seetaan la ñuy waxtaan ak moom mais balaa ñuy dugg ci waxtaan bi dañ koy bàyyi mu présenté wu wax moom mooy kan ci ñi ko xamul mais réew mi commencé nañ koo xam quand même mais pour ñi ko xamul nga wax ñu yow yaay kan Fatou Diop ñu gën koo xam ci Delta Fox balaa ñuy commencé sax bu présenté woo pare dañ koy laaj luy Delta Fox mm-hmm. jogarugu ci waxtaan bi ndax ànd ngeen ci li ma wax salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. je m'appelle Fatou Diop. Euh, plus connue sur les réseaux sociaux, euh, c'est Delta Fox. Euh, donc, je travaille dans la compagnie aérienne Air Sénégal. Et sinon, je suis sur les réseaux sociaux et je fais aussi un peu de social. Voilà. waaw ngeen leen tegal lu met ndax waroo fee toog di wax Air Sénégal mais comme da ngeen a gunge Youssou ci biir si bi ba pare man ma bokk ci kër gi aussi <laughs> la rek ak def ci donc lan moo waral sa nom bi ñu lay woowee ci réseaux sociaux alors Delta Fox comme chaque jour nañu ma koy laajee en fait c'est simple je m'appelle Fatou Diop et dans le milieu aérien en fait euh, F mooy Fox D mooy Delta madoo yow naka nga sant donc Mike Delta nga naroon tudd. ah. Ransen. Ransen mooy Romeo Sierra. Romeo. Sierra. ci ci avion. nan ngay. Takko Gueye Takko Gueye Tango Golf. Tango Golf. yow ñëwal yow. Béti Béti Fall. Béti Fall bravo. Fox Fox yow man ak yow dañoo naroon. Babacar Camara. BC bravo Charlie. bravo Charles. waaw <laughs> ku nekk ak sa tur. Euh, y bi ak euh, N bi. Yankee November. Yankee November Youssou Ndour. Yankee xam nañ Yankee moom. waaw Yankee xam nañ ko. mais euh, tey mais yow ci air Sénégal bi nga nekk. Mhm. amoo temps bu bëree bëri bëri bëri naka nga def ba dem ci réseaux sociaux yi. alors euh, c'est vrai que au sein d'Art Sénégal euh, am naa fa liggéey boo xamante ne nii euh, du ma am temps wu def vidéo chaque jour ah, je ne dirais ñun ñëpp ay responsable lañ Aar mhm. Sénégal mhm. parce que bu ñu xoolee ba ki ñu jiite ba ki ci suuf ku ci nekk am nga benn partition boo xam ne yaa ngi koy jouer ci société bi tey jii lu am importance mooy Mado soo jëlee vol Air Sénégal que tout se passe bien mhm. donc à la fin de la journée da naan Fatou elle a bien travaillé wala keneen ak keneen elle a bien travaillé dans la société pour man li gën a am importance mooy mouvement d'ensemble bi du benn nit euh, benn nit kese bi ñuy tudd en fait ci société bi euh, voilà c'est un travail de groupe et euh, les vidéos en fait en général je les tourne que les dimanches parce que je n'ai pas le temps la semaine cette initiative là nga xalaat ne war nga def ay vidéos ci TikTok bi par rapport ak sa par rapport à mon travail voilà, voilà. alors c'est venu en fait d'une idée de am benn livreur bu tudd Abdou maa ngi koy nuyu de passage. Euh, donc dafa ñëwoon sama bureau livré ma benn affaire bu ma commandé woon. pandémie bi Covid 19 commencé donc euh, mu ne ma mais siste seetal naka nga ma mën a jàppalee ma ne ko ok amul problème ma dem sama kër ma def inventaire li ma am yëpp te peut-être utiliser tuma ko. ma ne ko ok donc on va lancer quelque chose qui s'appelle les delta de Fox. de de don de Fox Fatou. donc bi may commencer en fait noonu la commencer donc tous les samedis je faisais un live et puis euh, ñu waxtaan et puis on faisait un tirage au sort et puis mu livrer la ñu fay ko 2000 francs oh. voilà donc ma génne peut-être yére yi maquillage yi. yaa ngi may jox idée <laughs> lii dinaa sàcc lii ah lii c'est intéressant en fait noonu laa commencé. ci mhm. vidéo yi après par la suite bon euh, nit ki di bind commentaire euh, laaj la sa maquillage bi peut-être def ma ko woon pour ñu wax ci maquillage bi mais plutôt d'autres choses. bah on me pose une question sur ça et je réponds après li nga sol je réponds après fan nga defee sa perruque je réponds c'est parti comme ça et voilà après on commence un peu c'est comme ça que ça s'est passé en fait et après y a les marques qui te contactent pour faire des collaborations il y en a qui sont payantes y en a qui sont pas payantes c'est pas ku nekk ak sa sa mu toll rek en fait et moins la marque est connue je peux travailler avec parce que pour man ñi nga xamante ne peut-être amuñu visibilité ñooy gën a soxla ñun suñu genre bi ñu mën leen aider voilà en tout cas moi c'est comme ça que je travaille avec ma gis ne que léegi TikTok bi daanaka teint noir yi sax nag ñoo ñoo ci ëpp doole. ñoom ñëpp dem de ba ñeme seen ten di maquillé wu maquillage yu soft. di la sax toppandoo waale mën naa ko wax waaw waaw dem ba ba ñeme TikTok bi naka la la def loolu. alors c'est vrai qu'au début bon on reçoit des commentaires hein, et puis mënuñoo neex kenn ñëpp c'est pas possible bu ñu ko xoolee ci gindi gënd mi def yonent bi dañuy xam ne mënuñoo neex ñëpp. Mhm. donc on essaie de faire. li nga xamante ne en tout cas gëm nañ ko man en tout cas quand je fais c'est quelque chose boo xamante ne je suis à avec je veux dire ok ñu la xees ñëpp rafet nañ mais ku nekk ak li la yàlla may pour man et puis euh, ça parle aussi un peu de confiance en soi parce que c'est pas évident en fait de venir de s'imposer parce que voilà nit ñi des fois dañuy jóge ils n'ont pas de followers ils n'ont rien du tout mais ñëw di la saaga. Mhm. voilà et après aussi je suis une personne boo xamante ne non du ma fayu. non je ne réponds pas à la provocation en fait en tout cas jusque là euh, je ne réponds pas aux gens c'est-à-dire du ci nak en fait. c'est normal. par rapport à une personne boo xamante ne qui était dans sa bulle peut-être ci sa donc d'un benn bés nii rek jékki saay am benn dayo boo xamante ne tey maanaam tey yow boo taxawee bu dul sa kasketu sax job bi ngay def mais ku la gis euh, da ngay nekk léegi mun nañu wax nit ku siiw nga mhm. naka nga koy dundee en ce moment alors en général ça me fait rire parce que je, je pense toujours qu'il y a que quatre personnes qui regardent mes vidéos <laughs> c'est-à-dire quand je sors <laughs> en général vidéo yu nga xam ni am na ay millions de vues je sors en fait dans la rue ou comme par je vais aller faire des courses tout suñu ma nee Delta Force je sais que c'est les réseaux sociaux wala des fois on me dit ah mais je te reconnais balaa nga yeggale ma ne la TikTok la donc en fait ça ça brise un peu la glace parce que bon c'est vrai qu'au début j'étais un peu timide benn dama defoon benn vidéo boo xam ne maa ngi woon ci avion bi ça fait des millions de vues ma toog ma ne ma ragal la en fait je me suis dit mais bon Donc en fait, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis euh, voilà, je me fais une toute petite place parce que voilà, j'ai pas. naka nga def parce que am na ay ay ay ay balaa ma koy fàtte xaaral xaaral. waaw ah, li ma laaj mooy bu amee lu ko ci gën a neex. ak li nga xamante ne tey euh, bu ko xalaatee day rëccu li tax moo ko doon def lan lay doon. bu fekkee dafa tontu loo xam ni du noonu man ma tontu salaat laaj. la lu dul noonu man lañ ko laaj. parce que am na loo xam ne dafa tax nga génn tontu ci ay vidéo te tontu woo directement mais tontu nga indirectement te seetaan naa ko. ayca mën ngaa tontu. <laughs> li ma ci gën a neex mooy euh, c'est-à-dire interaction bi ma mën a am ak nit ñi c'est-à-dire y a beaucoup de gens yoo xamante au-delà de du travail que je fais au-delà peut-être de yére yi coiffure bi affaire yooyu c'est plutôt des relations humaines mm-hmm. ñoo xamante peut-être duñ ma xam xaw ma leen dañ may bind rek ne ma ah mais est-ce que dama am problème est-ce que mën naa la ko wax mm-hmm. et puis ñoo xamante ne ils sont je suis pas mariée mais euh,

pour l'instant je ne regrette absolument rien. ok un jour da nga voyagé bi nga voyagé nga sonn ci vol bi yegg après am na actualité je pense bu amoon euh, nga def live parce que boobu say euh, followers ñu ngi lay wax force live sa sa live la ñuy xaar nga def live sans même sans maquillage sans dara bi nga defee live ñu ne eh mais kii kon ndeke grand la après mais <coughs> am na yeneen vidéo yoo xam toog nga un mois yoo xam ni faisait des vidéos sans make-up loolu c'est une façon de répondre à ñi lay attaqué wala loolu lan la. alors c'est simple. Mhm. dama jóge Dakar j'ai voyagé 15 heures de voile yegg sonn donc j'arrive le matin et j'ai envie de faire une vidéo mais je prends mon téléphone je fais une vidéo. kon yéen donc je fais la vidéo justement ci benn ci benn son Viviane la woon bu bees bi Sweet Game et tout donc waay bi mu ma bëgg ko di ko def di ko defaat. Et donc, je vois que la vidéo, ben, vue par. Elle est devenue virale en quelques, quelques heures, en fait. Mais les gens, ah, mais non, euh, ah, mais en fait, yo, tu es belle. Ben, en fait, je n'ai jamais dit que j'étais belle, hein, moi. Je ne l'ai jamais dit. Ah, mais tu ressembles. Ah, mais merci ah, beaucoup. Merci. Ah, ah. Voilà. Donc, tu ressembles à un grand frère. Ah, mais. Quel Hamoulan Doulo, la fait, et mm-hmm. tout. Et je me rappelle, ma soeur m'a appelé pour me dire non, Dolen Tonto, je ne jamais. Je ne sais pas, c'est une réponse, mais je suis mais je faisais toujours des vidéos sans maquillage et même je des lives et je me rappelle benn jour mos nga ma bind ne ma yow sonal nga ñu. Mhm. da nga mënul maquiller yow ma ne ko non. et puis et puis et puis et puis on. et puis et ce sont ces mêmes gens-là qui reviennent pour te dire ah mais dañuy seetlu ne peut ko woon sans make tax mu xaw a euh, extraordinaire ci ñoom mais biñ ko miinee sans make bi dañ ne ah kon kii dafa am nga Sénégal la ñu nekk ah, Sénégal la ñu nekk ay ci dërëm ay ci. dama for ci sa wax yi rek maa ne nga ne a def social mhm. ma koy laaj lan moo ko poussé pour muy def social bi boole ko ak métier ak influenceur bi laaj na la laaj bu am solo mais may ma balaa nga ci tontu mhm. euh, ñu dem xooli sa ay vidéo euh, te ñëwaat léegi nga tontu ci parce que li mu laaj ni lu am importance laaj ba pare euh, lu ne fang kenn du ko jeex te ki ko def ki ko wax la bëgg quand même nañ dem xooli ay vidéo moom te ñëwaat léegi ci plateau bi wax leen kii mooy Delta Force Fatou Diop Acteur social. bu ñu naan Sénégal réewu teraanga la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ma ko waral tey jii ñi caabi féete ginnaaw jot nañu seen mbëggeel ak seen cofeel nee nañu reetaan mënul jënd courant waaye mu na leeral fépp tey ca camp pénal bu Liberté 6 fépp leer na mbégte mi foo di ko seen fàng kenn du ko jeex donc euh, looy wax la loo xam da ngay wax di ci teg sa loxo euh, mu ngi noonu donc euh, laaj bi mu la laaj mën nga cee tontu fi ñu toll nii. waaw alors euh, image yi ngeen gis nii donc c'est avec le groupe qui s'appelle Acteur Social donc ay acteurs la yoo xamante ne dañ leen xàmmee ci série yi ngeen di gis yëpp mhm. donc ñoom ñoo booloo bi la dernière fois c'était la première édition euh, de du groupe Acteur Social on est parti à la prison des femmes euh, camp ci góor ñi lañ njëkkee à foofu ils sont à peu près mille. Mhm. jigéen ñi ils sont elles sont peu près cent. Mhm. donc ñu toog ndogu ak ñoom. mais c'était man c'était une première pour moi mais c'est inimaginable c'est-à-dire mhm. même bu ñu la ko expliquer mënuloo mënuloo ko. xam tant que dunduloo ko donc on a fait une collecte de don donc man ma géré woon quand même partie pour les femmes vraiment parce que quand je pense aux aux, bah, aux règles en fait qu'on a tous les mois sa biir di metti tout et tout voilà donc euh, donc exactement donc on a reçu tout ça ay dàll ay ay saabu tout ça et tout ñu dem voilà waxtaan ak ñoom mais vraiment laaj leen ñoom c'est-à-dire naka la ñuy dundee fekk nañ fa ay daam aussi ak seen ay doom mais mu nekk loo xamante ne dafa c'est c'est kenn mënu ko imaginer mm-hmm. parce que soo xoolee ne yow après da ngay génn nga ñibbi sa kër tu activités et que ñoom fa ñu nekk nu ñu génn voilà mais quand même ils suivent ce qui se passe ah l' actualité xam nañ acteurs yi fa nekk ak yëpp et vraiment et puis mu nekk loo xamante ne nii euh, dañ ko bëgg a élargir dans les régions c' est à dire euh, on prévoit voilà ci prison yëpp la am euh, intention wu dem mais aussi on a besoin de l' aide de tout le monde voilà pour ñëpp mën si jàpp mhm. voilà mun ñu aider aussi et voilà pour ñu mën leen jàppale si te xam ne suba dañuy génn voilà acte yi si xale ndaw yi mhm. ci yëngu yi loolu tamit ñan ñoo la ci dooleel ak ñan nga àndal pour def loolu mhm. waaw loolu nag Tata Ndeye Marème la tudd c'est une seule femme boo xamante ne y'a quinze ans doomam dafa feebaroon nekk hôpital lu Dantec bi fa doomam nekkee mu nekk fa ak doomam gis situation bi mu génnee nee na moom xalaatutul di toog te du dem du leen di leen dem aide ji mhm. donc tous les samedis ñi ngi fa ak moom Euh, di leen toggal dañuy pour reer yóbbu leen ay yére yóbbu leen ay cathéter yóbbu leen ay gants xam nga et après aussi euh, voilà dañuy euh, on veut rénover en fait dafa am benn salle de jeu boo xam ne xale yi ah. foofu la ñu mais dafa yàqu dañu dafa am ñu fa demoon cambriolé ko donc actuellement on est en train de faire une quête en fait pour dem rénover ko ñun suñu bopp man en tout cas j'y serai mhm. ak euh, voilà am na yeneen ñu may àndal donc pour ñu dem foofu et puis faire les travaux vraiment pour euh, xale yi am benn espace boo xamante ne si seen feebar ñu am fu ñu mën a euh, feexloo quoi voilà c'est ça amiin yàlla defal la jàpp amiin ndax lii doomu aadama boo ko mënee dimbali mhm. ah, dimbali ko te jigéen xolam dafa oyof bu demee ba gis moroomu jigéenam mu nekk ci yenn situation yi rek bu xolam euh, euh, sotee rek du def du bëgg lu dul rek euh, dimbali ko. Mhm. yal na yàlla génne leen foofu ñu nekk. amiin bu fa génne yàlla euh, na leen sunu borom teg ci beneen yoon boo xam ne dootuñu dellu foofu. amiin yaa euh, mhm. aussi ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di jàppale ci biir prison bi parce que seetaanuñ leen ginnaaw don yu bare ñu mel ñu baax ñu mel ni yéen di leen di dimbali c'est une occasion aussi di wax gars yi nañ ñëw jàpp ci acte bu noble bi waaye foofu tamit da nga gis da leen di jàppale di leen di jàngal ñaw di leen di jàngal transformation ce que bés bu ñu génnee dinañ mën a adapté waat socialement donc loolu tamit ñoom ñi fa nekk njiit yooyu ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter mais moi je vais retourner encore juste un peu en arrière mm-hmm. parce que comme ni ñu koy waxee ci sa wàllu liggéey laay delluwaat donc est que parfois ni ma ko xamee tu es lié dans euh, wala yaa ngi sous contrat ci benn société di fa liggéey est-ce que léeg-léeg du indi ay gàllankoor yaag sa ay njiit sa ay directeur wala sax parfois ñu imposer la à ce que aussi ngay fësal li nga xamante ne moom moo di liggéeyu Air Sénégal que foog sa fa nga ne tam. alors pour l'instant. Euh, ah, si Delta Fox. bi ñu la jox ñoom. nga génn ko ci réseaux sociaux yi donc est que yaa ngi leen rendre ñoom. mais abaa ah joxuñu ma ko kooku maa ko jox sama bopp. Ah, parce que en fait je je rappelle juste que ne ci aérien la monsieur liggéey en fait euh, j'étais en France donc je suis au Sénégal en Et euh, voilà, j'ai travaillé entre l'aéroport de Roissy et de Orly. Donc, euh, et là, j'ai été débauchée chez Air Sénégal. Okay. Pour l'instant, la question ne se pose pas parce que naturellement, je vais parler d'Air Sénégal parce qu'en général, les gens qui me suivent m'associent à la compagnie. Ah, okay. donc forcément euh, bah, la publicité elle est gratuite pour foofu laay liggéey. mais amoo ci. suumar lalla moomu muy bëre daan ngay ree suur kenn du ko teree fekk suxlu mbër lalla moomu ca gër muy bëre daan ngay ree yal na yàlla defal la jàmm. jàmbaar mais mais booba tey amoo ci ak problème ak ñoom. pour l'instant non. réunion amagul euh, kaay il faut nga <laughs> def ce choix <laughs> réunion amagul. mais yow bu réunion amee dama lay woo. Ah, waaw léegi da ngay ñëw ah, da ngay ñëw problème na ko jékki fii mu toog nii jàpp na ko lool. man ci staff laa bokk. Ah! wax nga dëgg problème bu amee fee rek ñu indi ko teg ko. fii mu toog nii am na waaw waaw am na élégance. ay na élégance bi <laughs> ba pare ba pare am na éloquence bi aussi ay am na pertinence bi donc yaakaar naa ne dañu ñëwaat ci moom euh, faaw ñu wax ci association brèche bi euh, wax ci li nga xam ni moom mooy tabarkal lan moo ko téye ba tey ci mbedd mi ndax euh, heure bi war na ko fekk ci kër bu yàgg ah loolu ñëpp dinañ ko waxtaanee waaye mu wax ñu ay projet mu aussi laata loolu dañuy ànd ak yow nga yóbbu ñu fa nga nekkoon ca Maroc Air Sénégal nga jël yaakaar naa waaw Air Sénégal <laughs> donc comme Abba ni nga ne moom moo di Maroc ci noonu ba tey ñu doxantu ci benn marché boo xamante ne ñu ko gën a ci turu marché Médine mu nekk marché bi gën a mag euh, foofu ca Casa rax ci doole nag sénégalais yi bare fa tànk li ci ëpp nag moom moo di soxna yi parce que ñu bare fa nañuy daan seen doole ci noonu ñu tase fa ak benn soxna buy wuyu ci turu euh, Khady effectivement comme ni nga ko waxee mu expliquer ñu dundinam ci biir Maroc boobule ñu dem biir Maroc comme ni nga ko waxee au passage ñuy nuyu sénégalais yi leen fa jiite ku mel ni Abdou Diop ak euh, sama xel dem na ci ki nga xamante ne aussi moom moo di Badou Badou Ba moom itam parce que mi ngi jàppale bu baax sénégalais yi fa nekk comme ni ma ko waxee woon sànq nekk nag donc Khady Sarr moomee 2013 ba tey mi ngi foofu nekk fa di fa liggéey donc ci ay kàddoom commencé woon na liggéey ci li nga xamante ne moom moo di këru naari mais liggéey bi mu gis ne dafa métti ci yoo xamante ne dañ fay nekk di def li nga ne moom moo di ay cils ay pose ongle parce que d'habitude la plupart ci été beeg yooyu da gis ni que dafay am lu bare ci li nga xamante moom moo di ay touristes pour ñu daan ci seen doole mm-hmm. waaye ginnaaw loolu ñëpp xam nañ ko Covid bi jot na fi jaar et je pense que dafa creuser benn euh, maanaam euh, toogte ci liggéey yëpp ku ci nekk mënatoo liggéey yëf yi doxatul parce que naar yi ci boppam ñenn ñi dañ leen bàyyiloo woon seen liggéey te ñoom ci naar yooyu ñooñu dañuy yaakaar parce que ñooy ñëw aussi parfois di defaru ci ñoom alors que à un moment comme ci ñooñu ñi lay dimbali ñoom bu ñu amee problème kon yow na ko jekk ñi yaakaar ci ñoom da ngay nekk ci ay difficulté te ñoom dafa am ay charge yu bare yoo xamante ne da leen war parce que comme niñ ko xamee da ngay loué néeg foofu comme niñ koy defee parfois da ngay jël benn appartement bokk ko ak ñeneen ngeen soo loué leen pour ci génn biñ leen laajee ci xayma à peu ñaata la parfois ñu lay naan ay benn benn chambre wala deux chambres ay 300000 la lay dikkee tey bu doon Dakar xam nga ne day jafe donc asatuma laa kenn koo xamante ne saa yooyu wàcc parfois peut-être ay 3000 ngay wàccee mhm. kon bu dëgëree ay 1000 francs te loolu boo ko bëggee dajale pour le mois day compliqué ginnaaw loole aussi mu waxaat benn message bu am importance mooy seen wàllum euh, Euh, carte de séjour dañ ci am problème il paraît que bu njëkk bi dimbali woon nañ leen ci bu baax a baax parce que bu fekkee ne yore nga benn contrat de bail sa location ak sa passeport rek mën nañ la ko defal mais léegi nag dafa soppi parce que dañ lay laaj ay contrat de travail te ñoom li ñuy def c'est ils sont dans l'informel parce que ci mbedd bi nañu nekk donc am loolu day jafe donc elle a lancé un message très fort di sàkku euh, pour ñu bàyyi leen xel ci ñoom gën leen ci jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy di njiit yi que je pense que diggante euh, Maroc ak Sénégal dëkk bu ratax la ñoom itam comme ni ñu koy waxee dëkk boo ci demee day leen di jege ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkee ci consulat bi mm-hmm. ñu gën leen dimbale rôle boobu nag dañ koy bàyyee kepp sa parce que mooy waree fam mm-hmm. mais ñun lu ñu doon wane rek ay jigéen yu fa nekk euh, di gëm seen bopp bay seen waar bañ a xàddi te xam ne comme ni ñu ko waxee liggéey rek a wóor kon ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp abaa c'est très important euh, damay ñëwaat nag balaa ñuy demaat euh, ci suñu invité bi wala ñuy tëj plateau bi ci ñi may ñaan ay billets pour dem stade man bokkuma fédération man duma zóor man duma ministre bokk ma ci ministère bi dañu may ñaan may ñaanaat dañu may ñaan may ñaanaat mais ñi may ñaan billet nañu xam ni billet yi may ñaan yëpp du pour man kese groupe bi ma nekk ak sama xarit yi may àndal ak sama ñëpp dañu may ñaan ay billets donc te je pense que euh, man dama takk ci équipe bi rip rip ba pare bokk ci réew mi quand donc bu ma ñaanee billet rek nañu ma may te xam ni ma koy mayewaat euh, pour yéen ñi may ñaan euh, yaakaar ngeen ma yaakaar moom laa yaakaaree joueurs yi ak bi yàlla bu yàlla tas yaakaar bu ma leen ñaanee rek ngeen xam bu yéeg xaalis ak yem bu ma leen ñaanee rek ngeen xam ne yow yow du pour man rek mais du pour man rek man ak ñëpp koy bokk waaw acca nañ Pape ay waay man ndeysaan nday wuy Pape <laughs> nañu demaat ci suñu invité bi dama foog ni balaa ñuy euh, jeexal plateau bi dina ñu wax lan mooy ay projet alors ah ci presse beeg yooyu duñ ci mais mais mais quand même wax ba pare mais quand même wax ñu ay projet ba pare lu gars yi di xaar fii ak fii wala fee loolu la yi di xaar wax ñu say projet pare dinañ ci waxtaan ah Mame Rane ah parce que parce que parce parce que kii li nga xam ne moo ko wax moo xoos kii moo xuri kële ah, ah. ayca ayca mu ne euh, mu ne wax ñu say projet Alors, pour mes <laughs> projets ah. euh, à court terme, mm. euh, pour l'instant, ba liggéey bi gën a barkeel gën a mm. yokku Air Sénégal jëm ci kaw. Mm. Euh, ñëpp mën si profiter et puis euh, voilà sur le côté social euh, vraiment ñu mën a dem euh, fi ñu bëgg a dem yëpp. yàlla suturaal ñu dimbali ñu ba ñu mën a aider ñi ñu bëgg a aider ñëpp et puis surtout le projet bi nga xamante ne moom lañ am vraiment rénover la salle. de jeu des enfants qui sont à l'hôpital Le Dantec mhm. loolu moom bokk na ci loo xamante instant bi vraiment bëgg nañ mu taxaw parce que nga nekk fenn feebar amuloo foo xamante ne foofu nga mën a toog pour voilà oublier un peu la maladie euh, pour man soxla nañ ko en plus ay xale yu ndaw lañ quoi mhm. yoo xamante ne ñoom ak seen ay parents ñoo fa nekk donc euh, voilà pour l'instant c'est ça et puis yàlla may ñu ci ñaari nom yi tu préfères le nom Fatou Diop Air Sénégal ou Delta Fox influenceuse mais Je suis juste créatrice de contenu. Okay. C'est différent. Ok. Mais disons Delta Fox. J'aime bien parce que ça me fait rire à chaque fois que quelqu'un m'accoste en me Delta Fox. damay xam fan la ma xamee en fait. ayca am na solo am na solo donc li ñu mayoon ci waxtu yaakaar naa ni moom moo jeex euh, Mamran mooy njëkk a tàggoo wala Betty euh, wala Mado wala dërëm ku ko sentir rek na tàggoo balaa ñu dugg ci vie privée moom. ajaraat waaw mais li euh, ñuy tàggoo mooy li ma euh, ibbee sànq rek mhm. euh, di nuyu waa Mbuur bu baax a baax mhm, mhm, di di jaajëfal ki nga xam ne mooy yeggul fay ni ma seetu woon foofu wax dëgg yàlla mu defal ma ay teraanga yoo xam ne bëggul ma yëkki dara jënd ak sama suma poos mu doon xale bu baax xale bu am jom séeri bintu may nuyu ki nga xam mooy làmp di nuyu bamba mi nga xam ne ñoo ne ci bitig ba di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa seeti woon foofu waa sali di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñi fekkoon naa leen foofu Mhm. Euh, ñu doon ay nit ñu baax di nuyu waa Caara yi di leen wax ne la saa bu ma toogee fii rek maa ngi toogee toogaay boo xamante ne nii di nuyu ñi nga xam ne mooy dëkku Lebu yëpp. Mhm. di wax ne Aba képp koo xamante ne nii woo na ma ma wax ne ma daf lay bëggee rek daf lay bëggee. mooy wax ne ñi nga xam ne ñoo ñuy bëggee ñu ngi euh, ziare ñëpp di ñaanal jàmm maam raan ñi ko bëgg a bëri na Aba euh, barki démb li ma ñëwoon toog fii di ko wax ci mara bi gën wax ci man. li ma ci doon xalaat loolu moo ci mu jàmm parce que sama yaay daf ma affaire bi xam nga mbir yi rek ñu tegal ko ko affaire bi jàpp ko ba mu xawoon ce feebar mooy ñu ngi ñu ngi massawu ñi nga xam ne ñu ngi may woo ñëpp fépp foo xamante ne ni tey jii nit a nga fa di ma euh, woo na ma di ma di méttitlu affaire bi nga ne moo am may wax ne tey laa gën a xam sénégalais yi ni ma defee seen xol ma leen wax ne maa leen gën a bëgg maa ngi leen di di nuyu ñëpp bu ma toogee fi di lim ñi ma bëgg du ma fi jóge maa ngi kontaan ci ñëpp jërë ngeen jëf ci ma la doon wax rek euh, man tamit laay ñëwaat waxaat la ko bul lijjanti bul toppatoo bul faale mënaluñ na dara lu waaye mënal nit na ko def ci boppam moom mu njëkkee c'est très important mënaluñ la dara neel sa yaay na xelam dal lu ñu mënul seen bopp mënuñu ko ci yow euh, tëddal la sama waa ji merci damay profiter bu baax a baax a baax di nuyu Aïcha Diawara depuis Canada maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom mi nga xam ne greffage greffage bu baax bu ma teg moom moom ku a li ko maa ngi koy bëggee bu baax a baax Aïcha Diawara from Gambia maa ngi lay bëggee lu bëree bëree bëri mais aussi maa ngi nuyu bu baax a baax Marina ak sama chéri Coco moom aussi from Gambia la maa ngi koy nuyu bu baax a baax naan ko bienvenue welcome <laughs> waaw waaw semaine bee passé yëpp tàggatoo wuñu chéri Coco waaw Gambia man Marina. ayla ayla ah. eh. <laughs> yàlla baal la teg teg ko foofu yàlla baal léegi ah, léegi alxayri jub am mbokaa léegi alxayri jub mbokaa ñun mbokaa xam ñun waa Gambia dañoo buggante eh. <laughs> Ah, bàyyi leen eh eh waaw waaw bàyyi leen ma nag yéen tamit nag ma ah, tàggatoo. waaw acca acca mais bàyyi ngeen li ma tàggatoo woon semaine bi passée bi naa ko tàggatoo. incha allah rabbi acca mi ngi noonu maa ngi leen di bëgg bu baax a euh, ba moom mi nga xam ne mooy jaar ci maquillage bi saa sune mais bébé Astou nee naa la man ak moom 9 ans ngi nii macha allah rek laay wax. maa ngi lay bëggee bu baax a baax lu ma sol ci tele bi yëpp yaa ma ko jox vraiment kontaan naa ci yow trop trop nuyul ma sama yaay booy taan day fay maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax dërëm yéen ñëpp maa ngi leen di dégg lu bëri bëri mais man moom sa fans la Delta Fox. man moom sa fans la. <laughs> Eh, eh, eh léegi dañuy dem ci Giyaas Sare daal koy jox mu tàggatoo astafurlah dañuy dem ci dërëm jox ko damaa juum. ah ah yàgg yi damaa juum maay moom mooy man Sare maa <laughs> boo boo juumee ci moom du métti. Mm-hmm. ndax danoo ànd petit ba grand dara mm-hmm. ñaawul. Mm-hmm. Ah, comme boo juumee ci moom rek maa ngi lay wuyu chéri laay dem. di wax ni nag euh, ah, ah, ubbil naa la. ay bunt rek ubbil naa la waaw waaw ayca ayca. <laughs> yow kii. ayca laay rubekat de première classe mooy Aba di wax ni maa ngi nuyu euh, semaine bii nag dama àndoon ak sama nawle muy Maymouna Gueye Euh, madame Diop di ko jaajëfal bu baax ndax ànd ak sa nawle teral ko yombul. Mhm. mu nekk ci télé bi nekk xale bu baax. Mhm. tubaarkàlla ma di ko ñaanal fi mu nekk yàlla jàppale ko. may ko jàmm gi nga xamante ni mooy euh, jigéenu Njaay may sa di leen nuyu bu baax baax di nuyu waa ba ma jugee ku ci mel ni Xadi Samake ak Sidiki. Mhm. ak Dirpa Njaay mi ngi may woo léegi ak Xadi si maa ngi jaajëfal Pape ak ki nga xamante ni mooy Sina si saxo ndax booy dem ci nit ñi nit di la teral. abaa foo jaar rek. sant leen li muy gàtt gàtt ñu sant leen wax ñu suñu xol di nuyu fépp foo xamante ni jaar Mbaye Ndiaye sama séeri borom Louga loo mhm. ak sëñ Mbàkke ak xale yi ma àndaloon ñoom ñëpp demee defi beneen liggéey boo xamante ni Ndour Waly Mbergane Ndiaga Ndour moo ñu ko santoon euh, Ndour maa ngi koy ñaanal moom it euh, yàlla saxal ko ci palaasam may ko jàmm saa su ndax euh, jàpp nañu daal comme ay rakkam yu mu bokkal ndey ak baay muy Ndiaga fu ñu yebal ñu dem di ko wax ni ñu ngi koy ñaanal di wax ne tey na dama àndoon ci maquillage mm-hmm. maam jaar complexe yaa faatu fu la ci unité mm-hmm. sama rakk nekk fa defar ba mu baax mm-hmm. ma ñëw toog ki nga xamante nag moo jaar ci borode bi muy waa Gambia muy goro yaa Marème mhm. ma ñëw rek war a bégal Sénégal jaar ko ci Jamila di ko nuyu nuyu ma bokkal plateau bi ndax defe naa ni dara ñaaw te bëggal Sénégal rek lañ jublu woon lépp loo xamante ni def nañ ko fi muy njuumte ñu ngi leen di wax ni du suñu coobare di leen jéggul lépp luñ fi def rek pour lu leen neex la ila euh, ba altine bi xale yaa ngi lay félicité de euh, xale yi ñu ngi naan macha allah ñu ngi lay félicité yaa ngi def liggéey bu am solo donc xaw ma sax kan moo ko bind waaye envoyé na ma SMS donc ñëpp a ngi lay félicité ñëpp a ngi lay seetaan ñëpp ngi enjoy euh, li nga xam ni moom ngay def jaww tey moom seen temps ngeen jël moom ci tàggatoo bi. <laughs> waaw waaye ci noonu ginnaaw bi ma sëggee sa téléphone bi rek. sama xel dem ca Laat Diop bu Lonase ah ñu nuyuwaale ko tonton ndegam damaa sëgg rek sa téléphone gis Lonase sama xel bi dem ci moom kon mu nuyuwaale ko noonu rek waaw kay loo fa dem dem dem rek maa ngi yow ñu war faa mën a ànd. waaw la la ca waaw a baax waaw ci noonu tamit je fais un gros coucou à ma petite prunelle mon bonbon chocolaté mm-hmm. mon bonheur elle s'appelle Deshiba Ndiaye elle me regarde depuis tout à l'heure elle m'envoie des messages elle a 5 ans yow ak maam Guèye Ndioro Basiba ci Tégg Balla euh, ngi leen di ziar di leen jox bu baax seen wàccuwaay et puis ki nga xamante ne tey moom moo ma habillé elle s'appelle Bonheur Couture donc elle est joignable au 77 365 80 65 pour la coiffure glam by Mado ak maquillage na ngeen fa ñëw yow itam nag Fost euh, Delta Delta Fox Fox Delta Fox man daal bëgg naa tamit defaral la parce que euh, je te kiffe grave et vraiment bonne <laughs> am na solo ay am na solo donc nañu la bàyyi euh, tamit nga wax sa mot de la fin euh, projet yi moom duñ ci waxaat waxal sa mot de la fin rek ñu bàyyi la nga dem. bah je remercie tout le monde merci beaucoup vraiment euh, émission bi ça s'est bien passé. Euh, voilà yaatu ngeen yaatal ngeen ma mettre ma à l'aise parce que c'est pas évident quand même c'est quand même impressionnant il faut le dire. Mm-hmm. et euh, voilà yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp. def ko ci mm-hmm. réew bi. ah ñun ñëpp ñu fekk ko te tal ko. Mhm. waaw ñi werante naan lii sacré yàlla wala jàll wala yaa koy xoos un dina ñëw nga mës a gaañ sa bopp looy tontu ñooñu. alors waxoon naa ko vibe rajo la dernière fois. Mhm. nee leen du jaal saakara yàlla la. Mhm. te je pense que réew mi fi mu tool ni borom saakara yàlla li ñoo ko téye. ñoo dërëm yow xam nga li may wax daal. da ngeen eh, euh, je pense am sax seen association. c'est la team la team brèche. team nekk Groupe Futurs Médias waaw. léegi kese. yaayu yaayu moo kii euh, Troll Travel. waaw waaw Aïssata mooy euh, Aïssata mooy doomu soxna Fatou Bintou. voilà Aïssata mooy Tourelle Travel. Tourelle Travel moom tamit dafa am brèche. waaw brèche. Mmh, mmh, mmh, le parisien. ah ok léegi euh, li ah. Euh, rawaan de da doon. marié ma koy wax nga dëgg wax ne yàlla euh, am barke ak mhm. njaboot bu am mhm. barke mhm. ndax su ma ko tudd tey ma <laughs> léegi nag ñii laajte naan moom euh, lan moo ko téye moo dàqaate wala euh, lan moo ko téye loolu sa vie privée la ah nga au feeling ah bu la neexee wax ci bu la neexee nga bañ ci wax quand même kenn forcé wu la bu dee laaj question elle est indiscrète quand même mën nga passe ah tu peux passer non du ma passe lu jot yomb daal kii daa ragal dara lu jot yomb ah mooy tontu bi. waaw man nga toroxal nii. <laughs> man nga toroxal nii. bu loolu boo ko nuyoo bu mu fay la ne la yàlla na la yàlla may dimanche su jàmm. mais ma yow pour yow dimanche rek la ñu war a may. mais mais am na ku ma xam ku indi avance nga bañ ko jël nga bañ a avance bi. kooku kan la. wax ko ah, fi mu leer ba suba ak jàmm même heure même <laughs> fréquence. yaa ngi daw de. <laughs> même ambiance ak même délire ci seetu Sénégal tey gis ngeen ba tey mënuñu wax. Euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, premier avant premier bi nga xam ni mooy xew ca Grand Théâtre ba tey ñu woon wax ci li nga xam ni moom mooy euh, xew ca Paris ca France ndax gis nga li nga xam moom la ñu ubbee émission bi donc li ko ubbi moom moo koy tëj ñu ngi ñaan suñu xarit suñu mbokk bi nga xam ni moo nekkoon ci ñun te yàlla mi nga xam ne moom moom ñëpp mu jël ko yóbbu ko yàlla yàlla daal ñu koy yërëmal yóbbul ñu ko ci àjjana yi gën a kawe jàngeen jëf ba suba ak jàmm même heure même fréquence seetu Sénégal ay ci bësin dëggal ma bësin